en avance wala wala vitesse bu war a daw pourquoi muy ralentir à chaque fois et surtout euh, yow mu parce que bi posé question bi la est-ce que ñu ko posé Wally Ballago Seck parce que fu mu toll nii euh, vous êtes le moteur de la musique sénégalaise vous êtes le précurseur de la musique sénégalaise musique sénégalaise bi nga ko waxee Wally Ballago Seck lañ ko wax donc loolu moo waral ma lay posé question bi lan moo waral fu mu toll nii musique sénégalaise xaw a xaw a xaw a ralentir tuuti tuuti tuuti alors Mamadou on a excuse-moi benn benn benn dañu la musique yow yow yow man bàyyi ma rek yow tey nga tey nga toj ci bismillah ñëwal ñëwal ñëwal merci beaucoup Wally encore benn bi euh, fans yu bëri nañ ko doon jooytu Wally Ballago Seck dafa def boo xam ne àdduna ñoo ko doon xaar muy Wally Ballago Seck Chris Brown ah. mais lañ jàpp ni euh, Wally Ballago Seck communication bu si wax dëgg dëgg dëgg dëgg est-ce que def na ko maanaam lu mu doon xaar clip euh, duo Wally Ballago Chris Brown amuñu ko dëgg-dëgg lu tax. waaw d'abord euh, clip bu Wally Ballago ak Chris Brown génnagul d'accord le son est sorti c'est bien beneen bi ci mooy. Euh, est-ce que musique sénégalaise soo waxalee yàlla fii la tolloon il y a dix ans ci ginnaaw loolu da nga may tontu après ma tontu oh, jox ko jox ko jox ko jox ko rek ñu ngi may dégg jox ko. ok ok waa lii s'il te plaît. waa dimbale ma jox ko rek ah garaawul. ok su may wax waxuma maanaam ñun sénégalais yi mais li may wax mooy au niveau national. non je parle pas de ça j'ai dit est-ce que musique sénégalaise. fi la tolloon y a ans ci ginnaaw c'est une réponse simple. non non. ok am na avancement. bien sûr. jox ma micro alors si la musique sénégalaise toll woon fii y ans ci ginnaaw am na avancement alhamdulilah man je suis venu. fekk fii sumay kilifa. fekk fi suma waajur fekk fi sumay mag ñu ne fii di doxal moo ñëw teg sama touche yàlla ne waaw sénégalais yi maa ngi doxal carrière laa et je pense que j'ai beaucoup j'ai beaucoup beaucoup trop apporté pour la musique sénégalaise ngeen wax ko ak ngeen ñàkk ko wax xam naa ko gëm naa ko te xam nga ko yow ñu koy wax alors li gën a am gën a am importance mooy carrière da nga ko war a topp étape par étape parce que euh, à un moment il faut ñu nangu benn affaire dafay doxal après day pousse keneen dafay ñëw nul ne éternel alors man lii am solo ci sama yoon mooy bu ma noppee ci sama yoon ñu ne ah moom de amoon na fi temps bi mu fi amee temps def na fi lii ak loolu moom importance mais musique sénégalaise su ma ko fekkoon ci dix yóbbu naa ko ci trente cinq mille non ci fait en fait tu parles de toi tu parles d'international écoute tu peux international sans national tey ki su fekkee dafay ñëw ci dëkk day laajte c'est qui le number one ñu ne ko diw boo ñëwee Sénégal boo nee c'est le number one da alors non xam nga xam nga xam nga xam nga yéen ñun Sénégal Sénégal dañu am benn handicap no écoute tey tey bésu waxtaan la c'est très très important gis nga des fois c'est bien ñoom journaliste ñu bàyyi la ñu poser yenn question yi pour ñu mën leen répondre parce que ñoom dañuy dimbali à ce que ñun génne li nekk ñun ak li ñu bëgg a wax suñu handicap mooy ñun ñun dañoo tuuti waaw dañoo tuuti dëkk yëpp chaque jour ma répété ko dëkk yëpp ñooñu ñoo ñu ëpp comprendre nga boo waxee Mali tey munoo wax te doo wax Sidiki Diabaté nangu nga loolu alors soo waxee Wally Sénégal doo wax te waxoo Wally donc bu fekkee international on essaye de faire tout ce qu'on pour être reconnu mais nag euh, yàlla mooy doogal gis nga mën naa dem ba bàyyi naa toog benn Fatou Gueye woo ma léegi ne ma kaa ñu ma duyoo moom mu nekk bomb boo xamante ni wër na atum c'est ça musique amul amul secret liggéey liggéey liggéey ba keroog ngay def ci bu baax mais y ni pas mieux international que Wally Seck dans ce pays. Euh, donc di euh, ay page da ngeen di dem African Live Jam on Instagram Facebook wala fu ngeen bëgg ngeen tagge cinq personnes follow page yi ñu may leen ay euh, Jordan may la ay ticket may la deux cent cinquante mille ba cinq cent mille. ah ba cinq cent alors merci à tous de nous avoir rejoints ñu jox madame Seck pour le dernier mot bu aussi am na ay points yoo xam ne bëggoon nga ci ñëw ñu ñëw ji en tout cas le rendez-vous est Mota non non. Euh, oui nañu xaw a déggante tuuti Viviane mi si. ok maintenant euh, ce qu'il faut comprendre aussi Mota j'aimerais que euh, ñu accentuer wu là-dessus aujourd'hui on a Dip Doundou Guiss on a Wally Seck et l'ensemble des journalistes dama ne woon question yi ñu yemale ko ci kii bi. mais dama gis échange bi Wally am ak euh, Mamadou donc Dip il est là il a sorti son dernier son gis nañ euh, actualité rap bi fi nekk su ma sañoon mën nañ ci wax tuuti actualité rap bi Dip lan nga gisee aujourd'hui euh, l'actualité l'actualité bi fi am nii parce que xam naa ne journaliste yi ku ci mel ni Malick ah. yes ah ouais Malick xam naa ne tu es beaucoup dans le game ah waxal tuuti ci actualité rap bi Dip. waaw lu may wax nag wax dëgg yàlla. yenn wax yi moom après bëri wax lay nirool quoi ndax nañ waxante dëgg rek kii nii liñ fi indi je pense que wax nañ ko après boo fi naree nekk di ut leneen looy wax pour yokku franchement bëri wax la quoi je suis désolé Euh, euh, récemment, Omar, on l'a vu entrer en collaboration avec. Reviens, reviens avec Dip. ok Dip waaw moom damay dem ci kii ci moom. waaw moom xam naa ni euh, il a une question pertinente et surtout tirage bi je vous ai parlé du jeu concours sànq de tirage bi kañ la ok euh, événement bi fii événement bi dinañ dem suñu tirage alors allez-y. Euh, maa ngi nuyu ñëpp euh, ñu fi teew ñu presse dama am question bu may posé di break dafa am benn jour ma seetaan ko TFM avec Pape Cheikh Diallo mu ci affaire u Kala Santé nga ko blindé ak kii bu leen yàq bu leen bi waay non bu leen yàq jotaay bi bu leen yàq jotaay aywa bisimilah fii ngeen koy fekk daf leen. donc euh, li ma bëggoon laaj mooy da nga ko waxoon ne yow loolu taloo quoi dafa am si yenn affaire yi nga nekk est bi si la bokk moo tax ñoom ñoo la tere wax affaire yooyu noonu wala dafa am leneen lu ko lal quoi. voilà merci moo taxoon ñëwoo ci après di ngeen comprendre lan moo tax mu ubbiwaat beneen brèche. bu rek di ngeen ko comprendre. <laughs> bon lan moo tax ñëwuma ci déjà du lu ma bokk d'abord parce que nit booy wax da wax si loo xam ne da nga si bokk wala loo xam ne jar na nga dugg si bu fekkee am nga buntu boo xam ne jar na nga dugg si quoi après li ma tontu pour man télé leer na quoi nekkul événement bi moo tax mais man am naa si lu ma nekk. am na événement yu bëri am na ay concert yu bëri yu moo waroon def mais dama ko bàyyi parce que dama nekk sama liggéeyu bopp kon nit boo nekkee di liggéey mënoo jël sa liggéey di ko booleeg coow wala di ko booleeg yoo xamante ni àndul ak liggéey bi ngay def loolu kese la mais du du du dara dama nekk di liggéey pareegu ma te yaakamtewu ma dara si li may liggéey loolu kese la jaajëf a euh, vu le featuring avec Youssoufa qui a apporté beaucoup ses fruits gis naa ne bi génnee ba tey est-ce que jot nga ci wax ak euh, nu mu demee euh, journaliste yeeg yooyu. waaw featuring bi jot naa si wax def nañ say interview et xëy na am na yu bëri xam ne mënu ma si wax parce que ñu ngi si liggéeyal loo fa liggéey bu commencé la eggagul bu soobee yàlla suba incha allah dina am loo xamante ni nouvelle boo xam ne dina dina dina jib lu bëri dinañ xam lan moo lal featuring boobu noonu. se pour prendre une autre question là-bas. Une autre question, on a hâte Il, m'interpelle depuis tout à l'heure. Allez-y. Jotali. maa ngi lay siyaar. waaye képp euh, la promotrice. sama question day revenir euh, ci Dip ak euh, maar ma gis ni dañuy tëgmal mondial. waaw bët. bët yëpp ak xel yëpp dem ci loolu est que mën nañ xaar tey benn it boo xam ne son buy gunge Lions yi ci Qatar entre vous deux ak Wally ak euh, Dick bien vrai que Viviane nee nañ ñu ngi voilà surtout de rappeler que ne y a un concept qui est derrière l'événement muy gunge Lions yi peut que Qatar maman peut-être c'est la bonne transition pour am it yu mel nii après plus tard waaw ñu ngi jëm ci coupe du monde fi ñu jëm su gënee ci ñun yàlla nañu ko yàlla may ndam ah su ko gënee ci ñun yàlla ñu ko yàlla jox xale yi am nañ jàmbaar bi am nañ jom bi ñu ngi leen di ñaanal jàmm ñu jógee fi ci jàmm egg ci jàmm liggéey seen liggéey dëgër xol ci jàmm ñu bisi ci jàmm c'est très important alors euh, tout est possible seen une bonne tout est possible euh, entre artistes nag après dinañ xool nu ñu toog waxtaanee xool comment faire mais bon vraiment way lion yi way sa bopp la quoi ils nous ont fait rêver kontaan noonu nañu jooyloo si ñu coupe d'Afrique yi moom saa boo xëyee di ko seetaan rek day mel ni teel gën a bees ñu ngi ñaan yàlla am bés boobu ci coupe du monde bi su gënee si ñun incha allah waaw je pense que Waly wax na lépp nee bu fekkee moo gën si ñun ñaan si yàlla may ndam donc ñu ngi ñaan mu yàlla pour mu gën si ñun <laughs> donc euh, li si des affaire liggéey wax dëgg yàlla comme que yéen a ngi insister si question yi liggéey bi ñu ngi si liggéey bi ñu ngi si ñu ngi liggéey léegi nag bu si woyu mondial waree mën a bokk dañ koy def comme mu bu ñu woyee lion yi suñ bopp la ñu donc bu si xajee rek tout possible tout est possible lu ne mën na nekk ci ay euh, fan yu néew quoi incha allah.